Maguette Ndiaye euh, tey Sénégal ñu ne gis nañu benn cas suspect euh, confirmé bien sûr coronavirus yaakaar nga ni euh, xel dina dal ak li am tey dispositif yi. waaw mais xel dina dal parce que bu fekkoon am dispositif bu correct kon waa ji dina ñu romb ba dugg ci biir dëkk bi déjà ñëw na ci aéroport service bi fa fekk moo tax ñu mën a xam. am na wala amul batterie d'analyse yi ñu ko defal ci sunu laboratoire yi nekk fële moom moo tax Pasteur moo tax ñu xam ni am na wala amul donc man de suma xel dal na très sincèrement parler parce que xaaruñu tey pour pour pour commencer di wax waxi coronavirus. te nañ moom dispositif bi dafa yéex mënoon na gën a gaaw bon ba ñu déggee mi dugg si yeneen dëkk yi waroon nañ mën a teel a jóg. waaw non waaw teel nañ jóg mais communication moo des Sénégalais moo mel noonu. il faut aussi nga leen teg pression pour euh, ñu mën di jël affaire bi euh, à la rigueur daal waaw parce que dañ koy oyofal ba mu dugg ba jël ampleur ñu koy doog a euh, jël naka ko mën a waxee sax jël au sérieux daal. non tiituñ ci de waaye nañu nañu nañu yokk matuwaay bi rek te yokk cat gi rek rek moo ci am solo waaye leneen lu ci des rek nañu nañu nuyoo daal te bañ yenn bañ a def yenn yi daal parce que def ci parce que romb romb nit ki nuyoo ko wala nga daan joxe nit ki loxo joxatoo ko loxo daa am ne ne ko gisee. Sénégal moom su côté boobu moom xarañ nañ ci Ebola baa ngi fii on a fait nos preuves donc y' a pas à soobee yàlla cas fa la yem dañu fexe ba def la maximum y' a maa ngi fii les la sont là les dispositifs sont là. avant même cas bi di avéré bon ñu jël euh, ministère jëloon na disposition yëpp donc amul dara lu ci jaaxle incha allah. mois j' étais mais par la suite je me suis dit que ñun Sénégal dafa am lu ñu am suñu valeur am nañ ko d' abord suñu maam yi dafa am lu ñu bàyyil fii nii loolu buñ ci toppee rek yaruñ ñuy tiit ñu delloo suñu xel yëpp si yàlla te xam nañ moo yor lépp. feebar bu ñëwoon nii ñun Sénégal yi wóor na ma ni c'est comme bi ni mu ko waxee bu ñu toogee ñaan yàlla yàlla dina ko fi génne te du ja du gaañ kenn man instant yi moom j'ai la conscience tranquille quoi. tey ñu dem wax ni euh, dëkk yu bëri da ciy am te ñuy wax ni muy propagé mu mel ni communication euh, information bu baax bi amuñu ko ci ko ci propagé euh, li muy propagé ñu bëri dootuñu nuyoon te dootuñu taxaw di waxtaan. waaw xam nga nag loolu mooy problème bu dañ naan tël rek na damm na. il faut que ñu continuer di dund suñu dund en respectant les règles d'hygiène parce que nag même bu du coronavirus set dafa baax gis nga set moom mooy lépp loo munti gis coronavirus ou pas dañu war a ñun tàmmal suñu bopp yar suñu bopp ci set ak discipline te bàyyi tërëf tërëf bi du ma nuyoo wala du ma jaar gauche wala duma jaar droite. non du ma ko bàyyi mais su ma nuyoo bon dinaa jël samay matuwaay dem raxasu comme ni nga ko waxee parce que am na lu fi teg que ne mënuñ ko defee peut-être dinañ mucc donc nañ nañ loolu rek. bu mu wàññi dara su suñu affinité ak yeneen nit ñu mayoo parce que feebar moom yàlla koy joxe quelque soit ñu tiit mais bu ñëwee rek ñëw na ku war nekk sa néeg bañ du génn sa bu ko war a dal da dal. kon luñ ci xam ne daal euh, yor na feebar bi rek ñu fexe euh, def ci matuwaay daal bu doy ba ba duñ ci am benn problème rawatina nag ñun ñu nekk ci mbedd mi ndax ñun ñu nekk ci mbedd mi moom lu ne. lu ne lañ euh, client bu ne dañ koy. waaw mais fu ñu gisee exemple Ebola baa ngi nii moo gën a métti mais yemul fenn mujjul fenn donc benn cas la ñu seet na ko mu jeex Ebola bi aussi ce sera de même incha allah waaw lépp baax ministère moom sont assez outillés pour euh, yemale fa affaire bi te loolu am na si benn xam ñaar man bu ma ko déggee suba euh, vraiment defal ma benn cas je sais que en ce qui me concerne nit ñi war nañ dal seen xel xam ne loolu. wala du dara. je vois ça si yoon bi maa ngi gis nit ñi partout ñi toogaay max dama je me suis dit que yooyu noonu amul njëriñ quoi parce que lii nii mun naa ne comme ni ko mbir si bu dee ni ko annoncé noonu la ñëwee kon xaaw naa yàgg fii nii kon pourquoi ñi toog ba tey ñun ñëpp ñuy tiit tiit lu di def ay affaire ñoo xamante ni amul solo quoi man de noonu laa ko gisee quoi franchement parler jarul ñuy ragal dañuy delloo suñu xel si yàlla ñu bàyyi lépp si loxo yàlla waaw moom moom lépp. qu'on se ñu am benn hygiène de vie mais aussi ñu xam ni feebar bu nekk dafa am ay matuwaay nañ ko jël te te mu tere ñoo continuer di dund suñu dund te bañ nag di wax ma sàmba dégg naa ko muy sëqat am na wala ma demba gis naa ko bët yi xonk am na il faut qu'on essaye d'être discipliné lui-même pour pouvoir faire face à cette maladie. li ñuy def daal maanaam nañ yokk jumtuwaay rek waaw loolu si kon dañoo war a gën a delluwaat ci cet gi ñu nekk. waaw delluwaat si cet gi comme ni ñu wax mais loolu du dara loolu du dara euh, traitement bi ay là on a on a décelé un traitement boo xam ne foo ko defee moom mu kii donc amul problème et vraiment man y' a de y' a pas de y' a pas de vraiment am nañ les moyens moyens de prévention am nañu am nañ l' équipe qu'il faut la santé lépp a fi. lépp mën na Sénégal moom amul benn problème vraiment bu soobee yàlla léppay baax.